ñoom it lu nu mel mën na leen a bañ a laal jamono ji ñu gis ne nag bii de inculpation jóge ci procureur bi li ko tax a jóg du lenn dul def pression ci ki nga xamante ni moom mooy njaboot gi ñu mën a daal di déggoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy enquêteurs yi ba du sonn benn yoon ci li nga xamante ni moom mooy élément yi ñu si war a dolli ay fan a ngi nii nag grand jury ñu koy topp ngir daal di sàkku ci moom daal mu may leen ñu dem daal di yër li nga xam ne moom mooy dossier yooyee ba ca mujjantal ga sala leen jox sañ-sañ ngir ñu jublu ci wàll wi sañ jaajëf soxna Fatou Mata Sey dara Abdoulaye bopp ci li ci yéenekaay yi dalli nag jàmm ba tey la woon fa woon ci coow li tënk coppite yi am ci code pénal bi opposition bi ne bi le war ta jàll bi le loi day tasum réew bu ñu sukkandiko ci député Cheikh Bamba Dièye mi xamle ne ku jég politique bi du ñu seetaan benn yoon ne kalaame nañu mbir yi ca conseil constitutionnel ngir ñu mun a neenal bi le loi Cheikh Bamba ne bi le code pénal ak coppite yañ ca indi jéem ci wàllu terrorisme du lenn lu dul bëgg a salfañi ak ak yelleefu doomi aadama faagaagal société civile faagaagal ku jég politique bi na saxal lu bari ci réew mi daañu fekk sax ab góor gu deful dara jàpp ko toroxal ko tëj ko giiru dundam opposition bi ne bi la doxalin warta wéy ci mim réew alerte quotidien ku jëkk politique gàngoog alerte nañu ci loi gi ñeel wàllu terrorisme te mu tënku ci coppite yañu indi yàggut ci code pénal bi tax na opposition parlementaire bi daal di jébal ab recours conseil constitutionnel ngir ñu mun a àtte wala boog dàkkal li fi xew alerte quotidien la xew yàggut ci assemblée nationale ci ay député ya fa doon jàmmarlo ña ca des di xasante am ñu fa doon sullante ay mbóot waral taxawaayu assemblée nationale lu jaaxal ne yi la député kenn xàmmeetu leen te pare nañu voté lu ne maanaam daganal lu ne ci assemblée nationale ba ci sax ci wàccaayu tabaski bi nga xamante ne xar moo ci dagan yi la député ku leen waxoon ne nañu tabaskee kaña ñu wote ko te duñ ci seet leen Oustaz Alioune Sall ne député yi ngelawaay taxaw leen ci soxla yaaskan wi yéen a bi di les échos des ci pencum ndaw réew mi jot nañ fa waxtaane orientation budgétaire Abdoulaye Daouda Diallo jër gi ñu denk wàllu koom xam ñu jëm daañu ful budget bi bokk na ci atum 2022 gi ñu jëm junni milliards député Jimo Souare ay kàddoom ci les échos xamle ne yooyu les milliards na ci Tambacounda ceeru ndax ba tey jafe-jafe yaa nga fa ne këtt ne jonn te saafara amagul Tambacounda tàyyi na ci ay calmant Jimbo Souare ne la ko jaaxal bokk na ci Tambacounda mi amagul université député Serigne Mansour Sy Djamil wone jaaxlem ci li xew ci rew mi rawatina assemblée nationale Serigne Mansour Sy Djamil ne bu ñuy wax mbirum terrorisme ci li wër Sénégal maanaam ci sous-région bi du kenn ku dul France a faral di indi ci réew mi te lu ci bari def ko forcé maanaam jaay doole de caa feeñ am loo xamante ne askan wi duñ ci am lu leer gédéka taxaw ci ñaari loi yi le bokk na ci bi tënk acte de la décentralisation ci atum gi weesu ak nañ ca doxale rawatina jaay doole ga am Sud Quotidien ba ca mujj bokk na ci coppite yañu indi yàggut ci code pénal bi mi jotut a leer ci xelu askan wi ak jaay doole ga feeñ yéenekaay bi di feeñal ne njiit yi saay su ne ma ngay amal tournée ci gox yi enquête ne googule doxali neexul benn yoon ku jéeg politique bi Walf Quotidien ci wàccaay élection yi ñu jëm njiitu mi Macky am ñu muy neexal am ña muy waxtaanal ngir mun a dooleel bile coalition benn Bokk Yaakaar génne cabinet yàggul dara Omar Sarr bu Dagana fekk si na leen Idrissa Seck fekk si leen Don Mbour ak Sow ba ci Abdoulaye Daouda Diallo ak ñeneen ak ñeneen génne kaabine lam ca jublu moom njiitu réew mi Macky lépp ngir dooleel mouvance présidentielle bi waaye mun na caa am jafe-jafe ndax bari ci ay aliyem kenn ku ne ci ñoom bëgg naa quotidien am ñu ci tàmbalee fippu am ñu ne gisatuñu seen bopp ci bile coalition yéene kabi di l'info ne gis-gis ya wute nañu lool ci tabaxaat marché Sandaga ci diggante Soham Wardini maire bu Dakar ak Aliou Ndoye bu Dakar Plateau kenn ku ne ma ngay xëcc jëm ci sa boor yéene kabi di las ne ña ngay saax-saaxe ña ngay séddoo suuf sa ca filaawa ya ne ca géejawaay doon lu metti lool askan wa yeewoo jot nañoo tuumal waa DGID ne dañ faa bëgg a akimo ak partenaire ñoo ko bëgg a séddoo waaye duñ ko seetaan génn kaabi di suñu lamb ne amateur yi a seetaan combat Papa Sow digganteem ak Siteu ñaari mbër yi jàkkaarloo nañu weccante nañu ay kàddu Papa Sow ma ngay fëgg dënnam daal di waat ne bile combat dina ci daan Siteu Siteu ne déet ne na Papa Sow xam ne saay bu arbi sifflé dina ko songi génn kaabi di libération ne waa ji di bu doonoon mbër muy song ñu ne daanu na ca yëmbal benn barag génn kaabi ne Nabi Mané jaaykatu fruit la muy banaan ak leneen ak leneen moom la doon naxe ay gune di leen sàkku génn kaabi jot na fa sàkku xale gu toll ci fukki ak ñaar ak xale googee mu siif jaare na ca wànnu lor yéene kaabidi sursaane xanaa nabi maane moomule dafa fàtte ne wàllu viol dañ ko fee criminaliser sursaane daan ya ca aju bokk na ci lii di karees maanaam raay gune gu jigéen gu toll ci fukki ak juróom yoon mun na la caa daan lu toll ci juróomi atu kaso jàpp fukki atu kaso jaajëf jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu foofulee ci lañ yëkkate jotaayu xibaar yi